mu di liggéey yoo xam ne ni ñoo ko tàmbali laata ñuy jub tabaski ngir rek a setal Sénégal gi wërngal këpp jëriñ ji gàll wàllu urbanisme ay jumtukaay yu ama am solo la génnee ngir amal bile programme ànd ak agent yu Sonaged. li nu muy mobiliser tey euh, toll toll na ci juróom benn junni vrai véritablement liggéeykat. ndakaaru rek ñeent junni liggéeykat la ñu mobiliser ci bés bi tey ngir ñu def liggéey bi ba ñu xayma la ñu yóbbu ay tonu déchet tonu mbalit ci ba bés toll na ci ñeenti junni ak juróomi téeméer mu nekk lu am solo li ñu njëkkati ci ay oto toll na ci ñaari téeméer ba noppi véritablement wër yi maanaam rotation yi wër wër yi dem nañ ci lu tolloog ñetti téeméer rek euh, lu tolloog juróom juróomi téeméer mu nekk liggéey bu am am solo Moussa Bala Fofana di ñi anam gi nga xamee ni noonee la jaaykati xar yi bàyyee seen gannaaw bërëb yi ñu leen dalaloon si gox ya goxaan yi. xam nga pour xar yomb président la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre dañoo jël matuwaay yëpp. pour que ki jë jëlee xaram fële ba ko andi ci point de vente bi nga andi ko sans ay frais am ci ci transport bi ñu dindil la frais yi boo ko andee ci benn mairie ñu defaral la place ne la kenn du la fi laaj taxe duñ la laaj ndox lu la laaj courant ba noppi sécurité bi daañu la ci dimbali kooku bu askan dajaloo defal la loolu yëpp ngir nga mën a jaay sa xar ci njëg gu yomb wallaay wallaay boo jaayee ba ba ngoon sa booy dem nettoyé tuuti door a dem. dikkaat ni it si lu soxal jafe-jafe yi si wàllu encombrement di anam gi ñuy lalee ak i bagage si mbedd yi fi si Ndakaaru. incha allah daañ ci xool naka la ñuy def ba jafe yooyu. Euh, encombrement bi ni ñu koy tuddee mooy maanaam càng càng-cangal yi ñuy <laughs> def ci dëkk bi nga xam ne loo bëgg a def càng foo mën a jaar doo yegg loo bëgg a def du yegg loolu incha allah daañ ci taxaw jëriñ gi di sant it njaboot yi balaa rek ñuy sànni mbalit si poubelle yi ñu fexe ba leen di segg lu ni mel day gën a rek yombal liggéey bi ñi nga xam ne ñoom ñu dénk wàll gi